taxaw tay ji fassiyene jëmbat ay garab ci axe bi toll ci juroom ñaari kilomètre lool nak day liggéey bu am solo boo xam ne dafay dellusiwaat ci liggéeyu Touba ci kanam bi mu initié bi mu initié won depuis bi Touba ci kanam ak légui jëm ci walu environnement rawatina njëmbatum garab xam ngeen ne tàmbali won nañ ko ci axe digënté mbacké ak Touba ba yalla defal nañu tawféex and ko partenariat yi nga xam ñoy jappalé jàppale Touba kanam ba axe bobu réussir nañ ko ba actuellement ni garab yi neex na xol lool. ci liggéey boobu nag ci la ñu continuer mais toujours rek bu ñu amee projet reboisement wala projet beneen bu mu mën a doon bu Touba ca kanam di def dañ ciy ànd ak ñëpp ndax loolu la ñu sëriñ bi jox ndigal dañ ciy ànd ak mbokki taalibe yi ndax tey jii gis ngeen ne Baye Fall yi bari nañ ci loolu ni ñu baaxoo jàppale Touba ca kanam ci bépp liggéey bu muy def ci njiital sëriñ Fallu Fall ak sëriñ Moussa Fall ñoom ñi ngi fi di jàpp ci liggéey bi waaye yeneen association yi ci dëkk bi ñi ngi di jàpp ci liggéey bi ni ñu ko baaxoo defee nag liggéey yu mel ni bu ñëwee dañ ci ànd ak ñi nga xam ne ñooy autorités yi nga xam ne loolu moo nekk ci seen loxo seen domaine de compétence la moo tax commune bu Touba gis ngeen ne participer nañ ci participation bu am solo ndax barrières yi jël nañ ko en charge donte Touba ca kanam jëndoon na ko ba pare dañoo wax ne dañ koy sax récupérer remboursé waat ko parce que il faut ñu ñu dugal ci seen loxo ci wàllu participation. noonu la waa Eaux et Forêts aussi jàppee ci liggéey bi ànd ko ak euh, ñi yor grande muraille vert ñu def ci taxawaay bu am am solo indi fi ay équipement yu am solo bu ndax bu dee lu jëm ci euh, ay citerne yi nga xam ne moom la ñu war a def fii goutte à ci quantité bu doy indi nañ fi ay ay barrières yu baree bari. indi nañ fi ay arrosoir andi nañ fi ay peel indi nañ fi ay ay râteau indi nañ fi jumtuwaay yi ñu war a soxla yëpp sëñ Abdoulaye Sow mii nag yàlla dogal na njëkkoon naa jox Touba ca kanam luy tolloog 5000 garabi xay 5000 garabi xay yooyu bu ñu ñëwee dañ ko séddale woon euh, mu tasaaroo ci biir dëkk bi bii yoon mu ñëwaat indiwaat yeneen 3000 3000 yooyu nag sëñ Mountakha joxe ndigal na bii yoon nañ ko tàmbalee fii mu doon lu fës ci entrée principale ba nga xam ne kuy dugg mën koo gis kon moom tamit ñoo ngi koy jaajëfal bu baax ci taxawaayam. Touba na ko loolu moo tax bii nga xamante ne waa tubaa ca kanam jot nañ ndigal sëñ bi ñu wax mu jóg def ci taxawaayu bët sëkk kon dina baax ñu seere ne boo doon ma liñ ci def muy service bi ëpp na cent million ndax liggéey liggéeyu xay yi liggéeyu ñeenti la ñeenti yoo xam ne bis bu set ñu ngi ciy xëy ndax xay maanaam màgg gi dafa yéex yéex googu mu yéex nag moo tax presque ñoom ñu ñu koy confier ndax ñoom dañoo war a liggéey joxe chaque année programme boo xamante ne programme bu kon garab yu gaaw rek lañu mën ñun nag ñu féete leen ci garab yi nga xamante ne mu gën a yéex kon loolu tam bu ñu koy jëmbat ñoom ñu def ci taxawaay yooyu dina jaaru ñu xamal ko ñëpp waaye li solo daal am solo mooy nun ñu ngi ñaanal sëñ bi rek muy Cheikh Mountakha yàlla na ko yàggal te may ko wér ndax lii lépp mooma ndax liggéey bu njëkk ba liggéey nañ ko dugal nañ ko ci penc yi mais juróomi junni xay yi nga xamante ne def nañ ko daaw jéeg waaye lii bi mu ñëwee dafa santaane ba pare wax fi koy def kon nag li ci des mooy ñu ñëpp ñu war a taxaw rek mot li ñu doon ñu àndante ko li wérte woon daal sëñ bi lu ngeen fi xalaat ci wàllu woo béy dee ngi fi nu ngi fi te lépp. monsieur le président de la république chef de l' état daf ñu demander laaj ñun de des eaux et forêts ak agence sénégalaise de reforestation euh, nañu tëral programme boo xam ni axe routier mooy dëkk dëkk yu mag yi boo leen di dugg ci bunt bi balaa nga àgg ba ci biir nañ ko def ay garab. ci ñaari côté yëpp ndaxte loolu day rafetal gox te daf koy ko jox image bu rafet bu ñu jógee ci assurés yi ñu dugg àgg ci biir dëkk yi nag dem ci mbedd yi dem ci kër yi programme boobu moo tax tey ñu ñëw fii tey ànd ak Touba kanam xalifa général des mu jox ma ndigal waa Touba kanam nañu ñoom it sóobu ci programme boobu ba tax tey ñun ñu ñëw fekkee mbir mi mu doon mbir moo xam nag bu am solo la gis ngeen ni tey Touba Mbàkke ñëpp a te ni ñu farloo ci mbir mi loolu dee wane ñun suñu mbébét li ñu gën a soxla mooy suivi bi suñu xel dal na ci bi ndaxte dañoo indi dèjà grillage bi ñëw na mat jox leen ay ay citerne fu ñuy def ndox pour bu def pour bu ngay def irrigation goutte à goutte matériel pour jëmbat indi nañ ko donc lépp lu chantier reboisement di laaj pour mu rëcc dund daa nga dafa daje ba pare ñu ñi dañaa faral di jëmbat ba pare dem di wuti lu koy aar waaye lépp lu koy aar

ndaxte tey yéen liggéey ci àll bi yéen a xam njëriñam yéen a ci kanam ci lu koy suuxat ci lu koy aar